chers fidèles euh, téléspectateurs bu Equivox TV ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah, di am mbégte bu baax a baax ak plaisir jàkkaarloog yéen fii ci seen chaîne leader dans lémission émission euh, People Vox tey nag suñu am euh, honneur dalal koo xamante ni macha allah kenn dootu ko présenté muy Marie Ndiaye muy un muy un artiste boo xamante ni macha allah elle est talentueuse ah. Ah, man bu baax a baax li muy def tey nag moom lañ dalal fa yéene waxtaan ak moom dañ ah. koy daal di nuyu rek ah, daal di koy ziar bàyyi ko mu mhm. nuyoog téléspectateur yi ñu seetaan ñu soog xuus ci waxtaan bi. Marie mhm. nuyu naa la. maa lay fay salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi may seetaan ñëpp téléspectateur yi waa Amérique waa Gambie waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp. Marie Ndiaye ginnaaw ba nga nuyoog téléspectateur yi ñuy seetaan bëggoon nañoo xam rek kan mooy mari Ndiaye. ak ah. lan moo la dugal ci musique ah, maa ngi tudd Mary Ndiaye um, j'ai maa ngi am 22 years deux ans um, bi ma commencé wee nag yàgg na du tey <laughs> depuis ma nekkee xale ah, sama papa mooy promoteur xam naa ñu bari xam nañ ko bu tudd Ablaye Ndiaye um, Atlanta bu ma woyee tey c'est parce que yàgg naa di nekk around artistes yi di fréquenter artistes yi kon du lu ma for dama yàgg nekk ci milieu artiste. Mhm. soo tey bu ma wéyee loolu moo tax kay. May Njaay yow uh, géwél nga walla géer nga. <laughs> bëggoon naa xam lool. <laughs> non du ma géwél nag du ma géwél dama bëgg wéy rek mais du ma géwél du ma géwél. ah comme sa papa dafa nekk promoteur. Mhm. di yëngu ci musique léegi di mhm. fréquenter artistes yi loolu moo tax nga woy fala la fala affaire bi duggee. waaw ah, foofu la ma duggee kay. <laughs> ok léegi mënoon nañoo xam ñaata single nga def actuellement. Ah, fi mu nekk nii ñetti single rek ak génnagum mais son yi bari na parce que li ma projet bi ma njëkk a def bi ma ñëwee Sénégal mooy projet ak Papa Thion ah, te loolu mu ngi jógee si sama nijaay parce que sama nijaay mooy Papis Ndiaye mooy chef orchestre Ramdan léegi sama premier son bi ma njëkk a enregistré dama ko ko envoyé pour mu mixé ko def ko version mbalax bi ma ko ko envoyé mu tombé papa coon dégg son bi fekk xamante na ak sama parce que sama papa promoteur la bi mu dégle son bi mu ne ah xale bi da mën na wéy woo leen ma ko parce que maa ngi am projet album moo nekk album Thione Seck àggu ko léegi bi ma ñëwee mu woo ma woo sama papa ne dafa bëgg ñëw moom pour ma ñëw wéy version international in English si anglais léegi bi ma ñëwee man projet bi man maa wéy version anglais bi version internationale bi noonu la demee. ok Thione moo la moo la jëlee États-Unis pour nga ñëw woy ci euh, mhm. projet CEDEAO bi. léegi euh, yow instant yi nii Thione lan la la instant bi lan projet bi entre parce que du yow rek yaa ci mhm. na ci ay yu ah, bëri yow nga woy version anglais. Mhm. léegi moom lan la leen mën a apporter après yéen artistes yi. projet bi projet boo xam ne la dafa oo artistes yi àdduna yëpp projet bu rëy la muy. américain maanaam suite bi ndax. am na ay tournée après et tout. wala parce que projet bi plan bu mu teg la moom plan boo xam ne euh, dina def tournage ay at parce que euh, du man rek comme ni nga ko waxee ay wéykat yu bari la malien euh, ñu jógee Casamance wéy nañ waa Gambie wéy nañ waa États-Unis wéy nañ genre wéykat boo xalaat ci àddina wéy na ci album bi léegi bu album bi génnee ak moom ni koy génnee dafa am ni mu koy génnee nànk-nànk bu génnee projet bu rëy lay doon incha allah mu doon tournage incha allah. ñu ñëw rek ci li nga xamante ni nag mooy sa trois singles yi nga def. Mm-hmm. ak ki nga xamante ni mooy Abdou Guité Seck. Mm-hmm. ak Edmo si je mm-hmm. me trompe pas. léegi nag bëggoon naa xam choix bi nga def lu tax nga su nga porté sa choix ci ki nga xamante ni mooy Abdou Guité Seck def ak moom. Um, featuring xam nga man ak Abdou Guité ndeysaan suñu diggante du tey parce que yàgg na di liggéey ak sama pap sama pap di ko indi. États-Unis muy tourné foofu ak moom. depuis ma nekkee xale Abdou Guité mun naa wax ne bokk na ci artistes yi ma miin léegi bi ma ñëwee yàlla def ma ñëw ci projet pour woy ci euh, projet Papa Thione bi bi ma fi nekkee ma taseeg moom ci studio bi moom tam mu ñëw di woy version euh, bi mu ñëwee mu naturel daal lu naturel la doon euh, ñu woy ko ñu fent son bi ci lu gaaw. yàggul sax benn jour lañ toog rek bi mu ñëwee ñu wàcc si suuf ñu fent soo amee mu neex mu jàll. xam nga yenn yi di nga am plan nga foog ne ok nii nga bëgg mu demee yàlla am lu mu dogal leneen parce que song boobu sax nekku nekkutoon son bi war a njëkk a génn si man parce que dama njëkk a def featuring ak Baye Babou bu Gambie son boobu la Papa John dégg moo ubbi bunt yooyu noonu yëpp. mais son bi nice trop léegi ah, bu ko xam rek euh, bi kan moo ko réalisé ak fan nga defee enregistrement yi. Euh, clip bi. Leuz waa Leuz Média ñoo ko ñoo ko ñoo ko def um, bi ma ko waaw bi ma ko enregistré ci studio Amet Boss Beats foofu laa ko enregistré um, moo nekk jëkkëru OMG xam naa da nga koy dégg OMG yeah foofu laa ko enregistré léegi vidéo bi waa Leuz ñu def ko ñoo ko def ñoo ko tourné. vidéo bi nga def single bi nga def ak ki nga xamante ni mooy Edmo. Edmo mm-hmm. Flow clip bi wala. ndax boobu génn na Edmo Flow tamit ci studio bi laa daje ak moom. Ah, mu nekk ku ku wàcce boppam ku kuul gars kuul ñu xamante ah, mu nekk sama gars ñu ñëw ñu def son bi mu naturel moom tamit ñu def son bi son bi génn ñu clip ko ma ñëw mu nice boobu tam wi flag moo fa jaar. ok bëggoon naa xam euh, artistes yu Sénégal yi. yéen mhm. yéen relation nga am ak ñoom. surtout ma nouvelle génération bi nga xamante ni yéen a tolloo ah, génération ah, maa ngi États-Unis but um, am na ñoo xam ne dama leen di dégg nii rek xamante wu ak ñoom nag xamante wu ma. am na xamante ni seek nga ak ñoom ay ay relation. Um, waaye mooy ñu ma tase si studio bi mais nouvelle génération bi um, j'espère que Admo la ak kan loolu la. waaw man nag xaw ma fi ñu bari mais xam naa incha allah uh, bi mu gën a yàgg rek dinaa seek relation yu baax ak ñoom ñëpp incha allah. gis nañ ay bool musique ngay def. Mhm. léegi su mun nañoo xaar euh, Mary Ndiaye ci mbalax bu saf sàpp. non xam nga <laughs> son Abdou Guité bi dama leen ñamal tuuti mbalax rek xumbul trop mais c'est mbalax mélodie lu lu em daal mais incha allah mun ngeen ma xaar ci côté bu nekk. ci côté bu nekk ci mbalax bu xumbul ci R&B ci reggae ci afrobeat incha allah nañu yàlla yóbbu rek yàlla ñu may ñu fekkee rek incha allah. Euh, artiste Sénégal yi bëggoon naa xam kan moo ci sa artiste ki nga xamante ni moom nga sant moom nga bëgg daal mooy say idole Sénégal fii góor ak jigéen. wuu ñu ñu mën a woy nag bari ma macha allah am na kenn mais damay sant man ñëpp lay déglu ah. ñëpp hmm. mag yi xale yi commencé ko ci ndeer man nag son ndeer laa ñi ko woy bi ma nekkee xale. son Alioune ndeer bu jógee ci foofu muy ndeer muy Titi Viviane. non ñëpp mën nañu def xam nga ku nekk am na lu ma lu ma neex ci yow am na lu may jël ci yow incha allah loolu la. ok euh, Marie Ndiaye comme nee nga artiste Sénégal yëpp ñoo la neex. <laughs> <laughs> ñëpp nga bëgg. Mhm. gis nañu aussi ay euh, photo yoo xamante ni dañu ko envoyé. depuis mhm. ba nga nekkee xale ba tey yaa ngi artiste yi. <laughs> depuis ba nga nekkee maanaam daal musique yow daal euh, c'est dans le sang daal. Mhm. Hmm. waaw dafa bokk ci man nag. yàlla loolu moo tax nga woy waaw loolu la. léegi bëggoon nañ xam instant yi lan mooy ay projet Marie Ndiaye ak fan la teg bëtam. ndax da ngay toog Sénégal resté liggéey Sénégal ou bien da ngay delluwaat et tout. non man damay jàng so damay jàng in um, States foofu laa nekk so su ma amee pause ma am break ci lay mun a profiter ñëw Sénégal def li may def Sénégal ak en enregistré def vidéo um, bi ma fi nekkee si projet Papa Thion bi toog naa fi ay dix mois yoo xam ne liggéey naa son yu bëree bëree bëri. digée naa ay 14 titres léegi c'est nànk nank rek nga mixé nga xawal stratégie xam ban mooy génn léegi na nga koy packagé mhm. léegi loolu moo des fi nekk ni son yi bari nañ léegi problème bi mooy rek pour naka lañ koy génnee ñu xool naka la ñuy chargé pour génne ko ne ko fi nga décidé toog pour euh, réaliser loolu ou bien da ngay da ngay da ngay jaabante rek. damay jaabante man moom damay damay jaabante. léegi mun nañoo xaar album bi kan. ah album bi mu ngi ñëw. mais bu leen ko yàkkamti bientôt mu ngi ñëw mu ngi ñëw. incha allah waaw léegi lan lan lan moo nekk ci album bi mun nga cee ñamale tout. Ah, fi mu nekk nii euh, album bi bari na parce que album mu comme ni ma la ko waxee world music la so dafa nekk album boo xam ne am na reggae am na afrobeat am na mbalax am na R&B am na yëpp. fi mu nekk nii projet bi ma nekk di dawal nii next euh, son bi génn mooy man ak baay Babou parce que boobu moo waroon njëkk génn mais yàlla dafa def ah, bu Abdou Guité bi ak bu Edmo bi ñoo njëkk génn léegi son bi ma def ak baay Babou mu ngi tudd Angel mhm. léegi son boobu incha allah mooy génn next ah, after son boobu noonu am na son tam bu tudd baal ma boobu tam mbalax la mhm. boobu incha allah boobu mooy ñëw mbalax pure dure maanaam waaw pure dure léegi loolu mooy projet yi ci décembre bi parce que décembre ñëw na te dañoo gis artistes yi décembre dañuy dañuy dañuy génn. lu mhm. may projet May Ndiaye. décembre maa ngi am maa ngi ciy ànd ak sama mag sama xarit ah, si The Return of the King Gambi. le 27 le 29 le 28 Waly ak Mame Diarra mm. Productions um, may def comme genre première partie. Gambi incha allah le vingt 28 ak Mame Diarra Productions Pa Malick. boobu mooy projet nag fi mu nekk nii loolu la ñuy pareel pour dem Gambi toj ko. léegi nag ñu bëgg ñu laaj la rek yow. Mhm. instant yi fan nga fan nga teg sa bët ci musique fan nga bëgg a egg. fan laa bëgg a egg non fu kawe fu ñuy déggee fu raw sax fu ñuy déggee ñoom Michael Jackson ñoom Beyoncé. déggal loolu la. <laughs> macha allah macha allah déggal loolu la. <laughs> macha allah macha allah yal na la ko yàlla may. parce que li ñu jot gis ci vidéo bi voix baa ngi fi et léegi ñu bàyyi la rek euh, nga tàggoo téléspectateur am si suñu seetaan. <laughs> Ah, maa ngi nuyu ñëpp ah, di bëgge ñëpp sama fans yi ñi ma bëgg ñëpp di leen wax ne ah, projet yu bari ñu ngi ñëw incha allah mhm. te ngeen xaar lu bari ci Mary Ndiaye incha allah. mais Mary Ndiaye tu es mariée wala célibataire non non non non séyenguma séyenguma <laughs> mais sax am na ku fi nekk am na kuy fëgg la. non non non bi bi bi bi jongo moom am na kuy fëgg moom. non non non fi mu nekk nii moom maa ngi si jàng bi maa si musique. non non wax lañ wax rek dañ ko waxtaanee ndànk ci suuf caméra yi dañ koy ah, ah, kan moo fi nekk bëggoon nañ xam. non instant bi moom non yaa ngi ci relation quand même. <laughs> yaa ngi <laughs> waxtaan. non ins bi moom musique bi moo fi nekk ak jàng bi. Ah. Mhm. mariage moom xalaatagoo ko instant bi non lu jot yomb. lu jot jigéen laa tamit jot yomb. bu nekkee suba aussi da ngay dem. <laughs> fi nekk nii moom maa ngi si jàng bi maa si musique bi. Ah. waaw waaw c'était un plaisir vraiment jàkkaarloo yow. sekk mm. yow waxtaan bi kontaan nañ trop mm. trop trop. Euh, les téléspectateurs euh, Equivox TV lii lañ leen indil loona Merry Ndiaye muy euh, artiste boo xamante ni macha allah ndaanaan la. mën na lu muy def en ah, bàyyi leen ko xel bientôt mu génne li nga xamante ni nag mooy euh, albumam li leen la indiloon nag ci biir euh, People Vox a ah, di leen jox euh, rendez-vous très bientôt incha allah feneen ak keneen merci. Mm-hmm. To achieve you must believe where there's a will there is a way. All you have to do is believe in yourself. yow mi di njaay man yow laa doon